liggéey bi nga xam ne ni jafe-jafe yi ca nekk bare na dundin gu métti ak dem bay xaddi gannaaw cofeel giñ ci am moo yàgg doon xar kanamu bile métier bi nga xam ne ne ay góor ak i jigéen yiy béy seen waar ngir réew mi jëm ci kanam ñoo ci nekk. dafa am solo journaliste bu nekk buy xëy di liggéey daal di jóge ci këru boppam. nataal bi ñuy faral di méngooleeg bile liggéey wuute lool. ak li taskatu xabaar yi di dundu bés bu ne. loolu tax ba association bii di la presse di liggéey ngir soppi boobule xar kanam. tey ñu ngi joxe li nga xamante ne moom mooy ay parcelles parcelles yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy deux cent yi njëkk a euh, souscrire ci li nga xamante ne moom mooy coopérative yi ñoom ñoo ko moom. donc distribution boobu lañ doon amal tey. lu toll ci ñaari téeméeri taskatu xabaar daañu am ay parcelles biir Thièw nekk booru Sindia ci njëg lu yomb lool. jàpp nañ ne li mu ñu proposé ak li ñu waxtaan loolu bépp eh, acteur de la presse mën nga ko muy 1 million 800 1 million 800 yooyu ñu ne balaa le 10 décembre yow mi nga xamante ne jot nga sa parcelle na nga dugal li mu gàtt gàtt 200 000 francs bu ñu sukkandikoo. ki teewal jëwrin gi ñu dénk wàllum communication bi le projet doon na la nga xam ne ni ku nekk war na cee dugal loxoom tey jii acteurs yi taxaw taxawal li ñuy wax coopérative d'habitat ak mutuelle de santé loolu dafa fekk déjà ministre bi jël na ay matukaay ay dispositions déjà pour jàppale leen pour ñu am mutuelle d'habitat ak pour ñu am mutuelle de santé. taskatu xibaar yi doon ñu am solos lool ci doxalinu réewum Sénégal nguur gi. ama prox ndoll ngir won yii la jàmbaar seen tolluwaay ci réew mi loolu la rek mu mun koo def ci bu dugalee loxoom ci liggéey mi ngir dimbale yii la taskatu xabaar ñu mën a tabax seeni kër ci cité bu ñu fas yéene woowee cité Mame Less Camara